asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi fii ci Touba ci résidence Cheikhul Khadim bëgg am ay tuuti ay leeral yi nga xam ne dafa jóge ci benn commission communication bokk ci comité d'organisation màggalu Touba bi nga xam ne Cheikh Mamadou Bara Mbacké yàlla nañ ko yàlla fayal mooy ki sabab mu am te mu jaare ci e, Serigne Bassirou mu Cheikh Abdoul Khadir muy ay li ñuy tuddee comité d'organisation Magalu Touba mi ngi ko commencé woon defe naa 2008 ci lañ ci nekkoon e, commission bi ñu nekk nag di communication ñu nekk sous commission i hébergement restauration les journalistes Euh, yore nañ ko lu mat juróom-ñetti at mel na ni itam at mu jot ni nga xam ne noonu la ñu sëriñ bi sante ñu doxale ko suñu diggante ak ganam yi ñuy tudde ay journaliste ndax euh, sëriñ bi dafa jàpp rek gan ku ñëw Tuubaa rek ganam nga moo xam ngay journaliste moo xam ngay leneen waaye jàpp ne ku fi ñëw rek ganam nga foo mën nekk ci dëkk bi yaa ngi biir këram moo tax bi ñuy tëral commission yi ñu ne kon ginnaaw journaliste yi jombut danañ mat ab lim nañ leen wutal lu mel noonu am ñu leen booleel ñu leen di saytu yàlla nag dogal bañ koy créer fii ci salle bi man Modou Mbacké mi lañ joxoon loolu ma ànd kook nag mbooloo moo xam ne at mu jot ñoom laa ciy àndal liggéey at mu jot it danañ am ñeenti barab yoo xam ne euh, fu ci nekk danaa fa yóbbu ay nit yoo xam ne ñoo fay toog di dalal gan ñi di leen toppatoo ci anam ya nga xam ne mooy ya ca war ci biir barab yooyu am na ci barab bu ràññiku boo xam ne ku ñuy wax docteur kan fii ci ñaari étage barab la boo xam ne moom daf koo jox képp ku fi nekkal Cheikhul Khadim ci sa loxo lay nekk ba tax na caabi barab boobee ñaari étage la yoo xam ne man mii lañ jox caabi ji at ba at muy màggal gi journaliste yi kenn ku ci nekk bu seetloo néeg ba muy nekk bu dellusiwaatee déwén dana yëg ne bu fekkee ubbi nañ ko it xëy na eh, defaraat rek lañ koy def tëjaat ko ngir ñoom rek. muy ñaari étage muy maison de la presse bi fi njëkk te gën fee mag ci biir waajtaay yooyu itam dafa yaatu lool ndax bokk na ci waajtaay yi ni ñuy defee fii waxtaan yi fii ci Kër Sëñ Touba gi ngir xool ba xam liggéey fu mu toll ak nu ñuy def ba mu gën a baax kër docteur kan nga xam ne sëriñ bi moo ci loxoom la nekk at mu jot dana am ay entretien yu ñu fay def am na ci at moo xam ne euh, sëriñ Cheikh bas ànd naa fa ak moom mu xoolal ko boppam gis ne am na yum laaj lam laaj yëpp itam ci wàllu defaraat defoon na ko ñàkk ci ay millions ci at mooma muy 2009 ren ji itam ma àndaat ak sëñ Ousmane mi nga xam ne mooy coordinateur bi ñu demaat xoolewaat bañ xoolewaat itam gis nañ fa yeneen yu ñu fa waroon a defaraat yooyu itam biñ ko seetee ay millions la defaraat nañ ko ba fi mu ne war na ci war a noppi ya nga xam ne daan ko am ci ay gàllankoor ci diggante courant bi ak ndox mi loole it ci ndimbalu sëriñ bi dem na ba yooyu yëpp amatul ndax wutal nañ ko conteur boo xam ne ci turu commité bi la nekk la lakk ci courant tam comité bi moo koy fay comité bi yóbbu na fa euh, benn réservoir do boo xam ne dana def cinq mille litres ci ndox yóbbu na fa it pompe boo xam ne mooy yéegal ndox mi ci kaw loolu du du ak defaraat entretien wu kër ga loolu moom itam biñ ko évaluer ay millions la yoo xam ne lu ci nekk man dama cay den dama cey doon témoin loolu lépp itam nag bu ko sëriñ bi def damay delluwaat ci gannaaw rek mooy sëriñ bi dafa waxoon ne nañuy teral gan ñi nañ leen yaatal te toppatoo leen yaatal toppatoo leen nag moo tax li ñu daj ci ñoom ñu di ko daj ci ñoom ngir yàlla ak jëmmi Cheikhul Khadim ak sëriñ bii nga xam ne moo ñu jot jottali ndigal Cheikhul Khadim muy sëriñ Sidi Mokhtar di ko jaarale sëriñ Mountakha Mbacké ba ci sëriñ Cheikh Bass fi nga xam ne ren nag ginnaaw kër docteur Kane waxoon naa ne am na ñeenti sit benn bi mooy fi ñuy wax bitigu américain Kër Diop et frère mi ngi fii ci Gare bu Ndaw digganteem ak jumaa ji soriwul ñaare dañ lay wax ñaare journaliste yi bu ñu ñëwee eh, ñi ci ëpp dañuy bëgg xëy na seen i déplacement moo ko laaj te dëkk bi dafay xat boo yorul boo même boo yoree oto sax bu soree bala nga agsi danga dana metti bala nga agsi kër sëriñ wala jumaa ji moo tax li ci ëpp dañuy soxla woo fu fu xaw a jege waaye ku ne xam ne fu xaw a jege itam bu dul barab boo moomoon soo bopp du yomb waaye yàlla mi ngi dimbale ba at yi yëpp fi ñuy am du ko du ko tax a sori noonu ginaar bi ñu jógee ci ñaari étage euh, ku ñuy wax sëñ Modou Diop ñu koy wax Diop et frère moom itam ni ko defoon daaw jéeg ak daaw ren ji joxewaat na këram kër gu yaatu la goo xam ne euh, dañ koy xaaj ci digg bi lenn li euh, RTS comme mbooloo la muy ànd ñoom ñoo fay bokk nekk beneen xaaj bi ci des lenn ci presse privée bi ñoo fay féete ñu amaat beneen boo xam ne tam ku ñuy wax euh, sëriñ Balla Ndiaye di taalibe bu baax moom itam moo ko joxe barki démb moom mi ngi fii den rek euh, jàkkay sëriñ Cheikh Saliou waaye yii mu wax yëpp itam nag bu ci nekk xool nañ ko la fa war a am ci ndox la fa war a am ci courant ndax foog mu doon euh, du doon courant kër yi rek ndax liggéey bay tax yëpp ñu ngi ciy saytu bala ci des xam naa ne ci toppatoo bareetul leneen li nga xam ne itam bokkoon na ci waajtaayu barab yi mooy ligne ADSL yi yooyu itam waa Sonatel jàpp nañ ci ba ñëw nañ wan nañ leen barab yëpp ba fenn fu ci nekk lañ fa war a installé installé ko fa bokk na ci seen waajtaay itam barab bu ci nekk war nañ faa yóbbu ay taabal taabal yi maa ngi nii léegi maa ngi jógee kër docteur Kane foofu ñaari niveau lay doon ci kaw ak ci suuf benn bu ci nekk la fa war a nekk ci taabal nekk na fa la war a nekk ci ay ay ay eh, matelas itam yóbbu nañ ko fa li nga xam ne moo fa war a nekk ci ci ci matériel boo xam ne dañ koy dañ koy jëfandikoo foofu lépp ma nga fa yóbbu nañ fa yi nettoyé kër yi yóbbu nañ fa matelas yi yóbbu nañ fa taabal yi ren it dañ daan def chaque année dañ daan loué ay seize ren comité bi eh, génnee na xaalis lu toll ci quatre cent mille francs man maa ko maa ko jënd démb ci ay seize yoo xam ne bañ ca pare dañ ko fiy denc spécial pour presse bi rek nga xam ne ci li ñuy toog di di di di liggéey ak mboolem loo nga xam ne daal xalaat nañ ne seen bëgg-bëgg lay doon sëriñ bi teel lañ cee woo ñu waxtaan ci ba lañ jàpp ne mënu cee ñàkk lépp waxtaan nañ ko ak comité bi comité bi la cay la cay waru goram ci génne xaalis bu ñu defee loola génn na ko ñi nga xam ne ku ne xam na ne lu dem ba mat ay cent personnes pour téye leen ci benn barab di leen toppatoo ku ne xam ne personnel bu yaatu moo ko man te du doon personnel boo xam ne dañ leen di fay xaalis waaye personnel boo xam ne dañ ci dañuy dañuy dañ leen di fayee jërëjëf Serigne Touba moo tax mbooloo mu dul jeex la ay góor la ak jigéen ñoo xam ne ñii ñi ngi jóge Ndakaaru ñi ngi jóge Thiès ñi ngi jóge Xombal ñi ngi jóge kawlax ñi ngi jóge biir dëkk bi ñëpp di ay góor ak jigéen yoo xam ne man sama commission euh, mënumaa wax ñaata lañ mën naa wax daal ne ñaari waañ lañ am benn bi moo moo géré kër docteur Kane yeneen ñett sit yi waañ bi ci des moo nga sama kër benn bi sëñ Mbàkkeem sëñ Dal Mariama Dam moo ko moo ko moo ko yore fii soriwul këram noonu yeneen yeneen ñett sit yi sama waa kër ñoo leen di toggal niñ leen di toppatoo itam daañ fexe ba togg gi daal daañ ko daañ ko toppatoo ba la ca war lépp boo doon teeru gan ga nga gën fonk doo ko mën a weesu tey daañ fexe itam ba lim boobu ma wax lu fu mën di teew ci ay journaliste kenn ku ci nekk nit par nit danañ fexe ba kenn ku ci nekk daañ ko jox ndékki loo xam ne bu ko doon bu doon bëggal boppam ndékki li gën ci moom du ko mën a weesu daañ ko jox añ boo xam ne bu doon wutal boppam añ boo ko gënal du ko mën a weesu te saa noppee daañu ko daañu ko jox dessert daañu ko jox pomme daañ ko jox benn orange daañu ko jox canette daañu ko jox boppam lii moo nag daañu ko jox ci añ daañu ko jox reer loolu kon ku ko ku ko xool nu muy toll ci diir juróomi fan yi ci nombre boobu ma wax ku ci ne nga jox ko bis bu ne nga jox ko pomme añ jox ko orange añ jox ko ko reer loolu li muy toll ci ab lim dana xaw a takku dana xaw a takku ci wax waaye dana tuuti lool ci yéene sëriñ bi euh, ba tax na kon mel na ne daal waajtaay yi mat na ba fi ne tàmbal nañ cee dugg am na sax euh, ay organe de presse yoo xam ne seen yéene ci màggal gi taxoon na ba teel nañoo ñëw lu mel ne Sen TV am nañ ci ay fan dalal naa leen bu yàgg ñeneen ñi ci des tam am nañu tàmbalee ñëw waaye li ñu gën a séentu dëgg-dëgg mooy diggante euh, suba la la daanaka ñëpp bu ñu mënta ñëw suba yi diggante suba ginnaaw suba moom ñëpp daa ñëw ñu ci ëpp sax daa ñëw suba incha allah rabbi loolu daal mooy li nga xam ne maa ngi koy wax ci turu comité bi yëpp waaye di ko wax ci turu euh, commission bi ma nekk nii muy communication et culture bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdou mu Serigne Cheikh Mbacke mooy ku ko jiite euh, bu yàgg ba léegi ñu koy ànd ak moom mu ci daj lu nekk moom itam waxtu wu nekk muy Touba muy Ndakaaru mi ngi mi ngi ci mi ngi ciy génne ay xalaat te liggéey bi ku ne xam ne xalaat rek moo ko yor euh, ndax affaire média la ku ne xam ne ne kon xalaat moo ko yor yii da koy wax yii da koy bind te lu ci nekk loo xam ne danga koy wax mbaa nga bind ko nag fokk xalaat bu ñaw moo ko war a jiitu balaa mën a génn kon moom itam ci côté am eh, xam nañ ne ku ci sonn la ku ci taxaw la ñu ànd ak moom ak Serigne Abou mi nekk sama wet ak bokk yi nga xam ne yëpp ñoo ñoom ñoo bokk commission parce que dañuy wax ne communication et culture kon nag loolu daal bu fekkee fàttiwuma loolu rek la ñu waxoon ñu tënkal leen ko a wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu